quoi depuis 2017 ñi ngi liggéey ci taxaw tabaxal tabax kër goo xam ne dañ naan këru Rich Al Wahda la maanaam mu nekk siège am mais tabax kër goo xam ne day nekk këru sénégalais yi day nekk këru département de Rufisque bii nga xamante si ni moom moo ñu dalal. ndax lan ndax li nga xamante si ni moom la ñu bëgg dañuy woote refondation société maanaam dañuy woote tëggaat société sénégalaise tëggaat goo xam ne dañ koy basé ci li nga xam ne moom mooy sunu ndono mag ñi fi jaar kër gi ñu tijji tey. ñu tuddee ko na Souleymane Baal war a dugg ci buntu boobu noonu boobu mooy ban buntu mooy buntu woo sénégalais yëpp ci ñu liggéey liggéey pour am benn sénégalais boo xamante ni si nii day nekk ku tijjeeku ci àdduna waaye day nekk koo xam ne ay tànkam dañuy samp ci ay reeni cosaanam ci reeni diineem donc loolu mooy discours risque loolu moo waral tey jii nii siège Thierno Souleymane bal bi nga xam ne moom la ñu inauguré te yamul fii parce que dañu bëgg mu nekk kër goo xamante ne si ni day am ay waxtaan day am ay jokkaloo day am lépp loo xamante ne si nii day tax ndawu sénégalais bi sénégalais bi d'une manière général gis ci boppam ci société bi nga xam ne moom lay dund donc ñun loolu mooy sunu mission donc Rassemblement Islamique Sénégal discours am da koo porté ci ndaw ñi d'abord parce que dañoo jàpp ne ndaw moom moo yor réew ndaw moom mooy tëgg réew ndaw mooy tax réew mën a sukkaliku mais ni ma la tubaab dafa am association bu nek ci biir rassemblement bi muy AMS association des élèves étudiants musulmans du Sénégal nga xamné ne ndaw ñi daf ñoo soxal ëllëgu élèves étudiants dañ ñoo soxal motax tax bu ñu gisee tey suñu réew système éducatif bi yëngato ni grévier tout cela dañuy profiter ci occasion bi pour wo enseignants yi pour wo état bi aussi ñu waxtante te ndax kat école publique bi ni ni ñu koy gisé ni, buntu jugul day doon école bo xamanteni dina faillir à sa mission mission bi nga xamne dafa waroon tax ndaw li nga xamne mo moo ci réew mi màggee ci réew mi jàngee ci réew mi jariñoo ci réew mi tekkee ci réew mi te loolu dafa nek mission bo xamne mission bu primordial la pour école sénégalaise te loolu école bi daf ko mës réussir donc la way nguur gi ak ñi nga xamne ne ñoo séq nañu trouver ay solution ci loolu lañ leen di wo ndax permettre mëna permettre ndaw ñoo tay ñu délu wat ci seen bërëbu jàngukaay mais ñun rassemblement national du Sénégal nak suñu mission suñu discours suñu yëpp dañ koy focaliser tamit ci ndaw ñi ndaxte dañoo bëgg ndaw loo xamante ni si nii comme ni ma ko waxee sànq day tijjeeku ci àdduna mais ay tànkam samp ci ay reeni cosaanam mu xam lan mooy diineem xam lan mooy cosaanam xam lan mooy ëllëgam ndaxte kat Sénégal buñ ko bëggee defar il faut ñam ndaw loo xamante si nii day gëm réew mi di sonn pour réew mi di jël discours boo xamante si nii alali réew mi sax da koy da koy da koy da koy saytu ngir mën a jëm kanam ñun loolu mooy suñu loolu